macha allah sànq la ñu fi ñëw ci ngoon ziar yonent bi lii nii bëgg a dem ziar yonent lañ fi ñëwoon ndeysaan waaw maa ngi sallallahu alayhi wa sallam njaboot gi yëpp di ñaanal taalibe yi mule mule yëpp naan leen juma mubarak juma mubarak ñu fekkee ko ay juma yu juma waaw sànq rek laa fi ñëw ci ngoon même pas deux heures de temps trois heures de temps ma dellu si waat yonente bi rek laa bëgg yonente bi rek macha allah moom laa xam waaw ah, ndeysaan waaw ah, fee laa taxawoon di ñaan ñu ne ma nañu dugg dem ziar ndeysaan ah macha allah fii kay du ma fi doyal ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam kenn du yonent yàlla Muhammad yaa ma gënal lépp lu ma am ci aduna bi jox naa la sama bopp jox naa la sama bopp njaboot ak famille bi yëpp ak suma taalibe yi macha allah kenn du yow yeneen tamit yow rek la ñu bëgg ndeysaan kii bu verte be ndeysaan foofu la ko ci bu weex be ndeysaan foofu la daan taxaw di jiite ndeysaan kenn yow yonente bi mu lay mu lay ñoo ngi lay nuyu mu lay mu lay wax nañ la asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum aboubacry asalaamaaleykum aboubacry asalaamaaleykum aboubacry asalaamaaleykum omar asalaamaaleykum omar asalaamaaleykum njaboot gi ñoo ngi lay nuyu prince mohammed moustapha rahman ñoo ngi lay nuyu mohammed rasul rahim ñoo ngi lay nuyu madame sow ñoo ngi lay nuyu macha allah suma yaay ñoo ngi lay nuyu famille bi yëpp soxna ummi soofi musaa Moussa Moulay Moulay taalibe yi ñëpp a ngi lay nuyu waa TMS macha allah ah beneen sens la sànq laa fi jóge dañuy dellu at jaar kenn du yónnente bi ah, waaw waaw macha allah chaque six mois ma ñëw macha allah du ma fi gëj macha allah bi nuyu nag taalibe yi mule mule yi jëwriñ yëpp jëwriñ ajaratu xadiba xadi buub jëwriñ galaay sey Fabakary Sonko jëwriñ jëwriñ galasoo faamaso dikel so ñoom cheikh taalibu ya bàyyiwuñu kenn ajaratu nday cheikh képp kuy taalibe mule mule ñëpp ah, amaat nañ chance ñëw waaw ah, amaat nañ chance ñëw léegi léegi dafa gën a yombaat sax ko dafa gën a yomb sax comme sànq waaw lii de dafa gën a yomb sax dafa gën a yomb de sànq si nii waaw nii dafa gën a yomb allah السلام عليكم يلا يا اخوان يلا يا شيخ السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد وريد الدنيا لك ودنك fii mooy bët bu mag bi bopp bi fii la fi sallallahu alayhi wa sallam yow yonente sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar ngi fi ndeysaan yeneen dëkk ndeysaan salaamaaleykum salaam yaa ma gënal suma ndey suma baax ma waxaat la ko nga dégg ko ndeysaan lépp lu ma am ci àdduna bi yow yonente bi yaa ma ko ma waxaat la ko nga dégg ndeysaan bopp bi bopp bi fii la fépp sallallahu alayhi wa sallam ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam musuma musuma تقبل الزواج يلا يا حج يلا ارضى يلا يا زاهر يلا ارضى كم يوم يا حج يا رسول الله كم يوم يا رسول الله kenn du yow yonente bi nuyu naa la siyaar naa la ñaanal naa la jàmm kenn du yow asalaamaaleykum rasulullahi bu ma doyal ci yow bu ma doyal ci yow du ma doyal ci yow macha allah allahu akbar cey suñu borom laa ilaha illa allah seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn du yow muhammad kenn du yow macha allah allahu akbar laa ilaha illallah laa ilaha illallah ah tey de am naa chance gis naa ko ñaari yoon macha amatuma fu ma nekk ndeysaan amatuma fu ma nekk macha allah amatuma fu ma nekk ndeysaan fi du ma doyal fi macha allah julli nañ gee ba pare ndeysaan minute maa ngi fi du ma doyal fi macha naa ba pare waaye maa ngi xoolaat ba xam dinaa mën a dugal macha allah. alhamdulilah parce que moom loo fi jëlee doo doyal doo jéem a dem macha allah. बात मत है वो रहा aw ma lu ma la fay wallahi daa ma gën a lépp ma am ci àdduna wax naa la ko waxati la ko macha ngi fii ci Medina ci jumaa sallallahu alayhi wa la yàlla teral moom la yàlla yëkkati ndeysaan moo gën ci moo gën ci mbindeef mooy gën di bindee ci jëmmam la bindee ci barkeem lañu ñu bindee macha allah. kenn du nabi macha allah fii de du fi gëjëf incha allah wallaahi gëj la am alal te ñëwoo fi la. yàlla teral la ñëwoo fi heure yàlla bu la teralee da nga war a ñëw fi macha allah ñàkk fi ñëw wóorul ndeysaan kenn du sallallahu alayhi wa sallam allah xoolal xeet gu ne moo fi ñëw ndeysaan xeet gu xeet gu ne mooy ñëw macha allah alhamdulilah doyal damaat macha allah waaw tey dem naa ñaari yoon macha allah damay demaat waaw buntu baa ngi ne damay demaat allah sànq moom ci biir ci biir lañ dugg am naa bunt boobu dañ koo tëj wala ma jéem a xoolaat yoon boobu ba xam buntu boobu xam naa dañ ko tëj quoi macha allah waaye fii direct ngay jàkkaarloo moom macha allah. mooy démarche démarche bi. mooy démarche bi. macha allah maa ngi nii di démarche léegi laa ko génn démarche du ma doyal sama turandoo. ay gannaaw xam naa yoon bi léegi jeex na macha allah chaque minute maa ngi fi chaque minute maa ngi fi sànq fee lañ génne woon des djinns, le roi médecine traditionnelle du monde, le roi des djinns, Thierno Moulé Sow Mouhamed Sow tey ñëw na seet si soppeem ñëw na ziar ko macha allah jërëjëf allahu allah jërëjëf macha allah kii boo ko bëggee rek sa aljanna leer macha allah waaw nga bëgg ko rek rawatina nag moo gënal a sa lépp doom bu am tuddee sa ñaari doom moom nga ko tuddee yow moo noonu nga tudd rawatina macha allah ah maa ngi dugaat nag di woo taalibe yëpp mu leen mu lay bàyyiwuñu kenn nag ndeysaan mënuñu lim ñëpp nag waaye ñëpp lañu woo fii ñëpp mu leen yëpp maa ngi nii di dugaat. du ma fi doyal fii du ma fi doyal ndeysaan macha allah fii la yonent bi tëdd ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam macha allah du ma doyal fii du ma doyal sànq fee lañ duggoon ci biir ci biir lañ duggoon macha allah alhamdulilah kenn du yonent bi kenn du rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ah, ma gënal lépp lu ma am ci àdduna bi gënal ma suma ndey suma baay kenn du sallallahu alayhi wa sallam borom barrière or bi macha nabi bu ñu am bu ñu la amul fu ñu jëm macha allah kenn du yow sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan lii nag waa TMS TV lii nag ndeysaan laay jëlal image yi macha allah heure bi jigéen ñi ñoo nekk ci biir ci xeet bu ne nga fi gis. ñu yeneen xeet na xeet bu ne nga fi gis ndeysaan. xeet bu ne nga fi gis macha allah. Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent fii la daan taxaw di julli waaw fii la daan taxaw di julli sallallahu alayhi wa naa foto wu naa fa fii la daan taxaw di jiite sallallahu alayhi wa sallam fii la daan taxaw di jiite fii la macha allah ngeen xamee ko noonu waaw fii la daan taxaw di julli fii la daan taxaw di julli diggante bii nag la ñu wax ne diggante aljanna la fii ak ak ak fu mu tëdd ndeysaan sànq dugg nañ foofu ziar nañ dugg nañ foofu ziar ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam nekk noonu moo ko si fi dugg naa ko sànq moom sallallahu alayhi wa lii la tëdd ndeysaan salaamaaleykum yaa rasulallah salaamaaleykum yaa rasulallah salaamaaleykum yaa rasulallah asalaamaaleykum yaa rasulallah. asalaamaaleykum yaa rasulallah. asalaamaaleykum yaa rasulallah. asalaamaaleykum yaa rasulallah. nuyu naa la. nuyu naa la asalaamaaleykum yaa rasulallah. ah jërëjëf. macha allah. asalaamaaleykum yaa rasulallah. asalaamaaleykum ya rasulullah ah ndeysaan asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah salaamaaleykum yaa rasulallah salaamaaleykum Umar salaamaaleykum Umar salaamaaleykum Umar salaamaaleykum Aboubacar sa xarit sa soppe Thierno Moule Sow Mouhamed Sow nuyu na la njaboot yëpp nuyu nañ la fay nañ la ngi lay nuyu taalibe yi mule mule yi salaamaaleykum yaa rasulallah tëdd salaamaaleykum. ndeysaan ya yaa rasulallah. tartiib tartiib tartiib. asalaamaaleykum ndeysaan yonente bi bopp baa ngi ni asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah est-ce que ndeysaan macha allah yonente bi fii la tëdd sallallahu alayhi wa sallam fii la tëdd fii boobu fii la féwte foofu tëdd bi sell asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum yaa rasulullah sa sopp nuyu na la ndeysaan sa sopp nuyu na la asalaamaaleykum yaa rasulullah asalaamaaleykum yaa rasulullah asalaamaaleykum yaa rasulullah sopp nuyu na la asalaamaaleykum yaa rasulullah asalaamaaleykum yaa rasulullah nuyu naa la sa soppe xamante ne yaa ko gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko lépp lu mu am ci àdduna bi nuyu na la salaamaaleykum yaa rasulullah salaamaaleykum yaa rasulullah sallallahu سلام سمعت عنه شيء؟ سلام سلام الحمد لله ما شاء الله ادعو لله وحده يا زاهد ادعو لله لا تدع مع الله احد السلام عليكم يا رسول الله هدينا এখান থেকে ndeysaan sama turandoo fii la tëdd turandoo Mouhamed Moustapha Rahman Moulay Sow fii la tëdd turandoo Mouhamed Rasoul Rahim fii la tëdd ndeysaan gën di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam du ma doyal ci yow maa ngi demaat tourné waat macha allah ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ma ndeysaan la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah fii doo doyal fii macha allah moo fi doyal moom fii mooy ñetti yoon ci journée bi tey ndeysaan mooy ñetti yoon maa ngi ñëw ziar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allah ñi ñaa ngi jóge fu ne ci aduna bi ñëw di ziar gën di sang sang bi macha allah di yaakaaru tey ëllëg

daw na ndeysaan kenn du allahu akbar ah macha allah ñi moom dañu koy bokk ak taalibe ak jaam am di jaam yi ak soppe ak TMS TV ndeysaan ma jëlal leen ndeysaan bokk ko ak yen partagé ko ak yéen ñëw nañ ci umra fii macha allah 2024 macha allah fii ci Makka ci Medina Munawar suba la ñuy dem Makka ndeysaan ci Kaaba ga macha allah waaw waaw tey suñu borom amul morom laa ilaaha illallah seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kii de moo fi dëkkoon duma fi gëj chaque minute maa ngi fi ndeysaan chaque minute maa ngi ci wallaahi boobaa sama liggéey yëpp fii la rek chaque minute maa ngi fi ndeysaan nuyu ñëpp ñi ñu seetaan à travers TMS TV képp kuy taalibe mule mule sa sedd na nuyu ñëp macha allah jërëjëf nuyu jëwriñ ajaratu xadi ba jëwriñ ajaratu xadi mbub jëwriñ galaay sey macha allah ñoom kalidu sokoom macha allah taalibe yëpp mule mule yi yëpp bàyyiwuñu kenn suñu limee dañuy juum di waa dem ci international jëwriñ ajaratu euh, jëwriñ jëwriñ Fabakary Sonko mu lay jëwriñ macha allah Galo Sow jëwriñ Dikel Sow Fama Sow Galo Sow macha allah ñaamu soirée macha allah Cheikh Tali Bouya taalibe yëpp Ismaïla Diallo macha allah mule mule ñoo ngi leen di nuyu macha allah leen ñaanal bu baax nuyu naa ñëpp ñaanal naa ñëpp fii woo naa ñëpp macha allah waaw nuyu عليك انا وسامي حتى انا بنص واحد وانا والله انا وسامي يا سامي ñaa ngi nii jàkkaarloo foofu di ñaan dañuy jàkkaarloo yonent bi fu verte fee ngeen di gis waaw fii fii la tëdd ndeysaan ñu laa jóge léegi léegi fii fii la daan jullee ndeysaan soriwul diggante bii nag lañ ne ci jardin aljanna nga la ndeysaan macha allah tey ñëw nañ fi ziar tey taxaw nañ ci jardin aljanna yi macha allah waaw gis nga fu ne la ñuy jóge partout dans le monde fu ne la ñuy jógee di filmer di caméra fu ne macha allah waaw partout dans le monde génn fu ne la ñuy jógee ndeysaan fu ne la ñuy jógee alhamdulilah rasul ndeysaan delluwaat defaat ziar ndeysaan delluwaat defaat allah ñu koy moom alhamdulilah rek la ñuy wax sant yàlla jullit bu yàlla def nga am teraanga aduna macha allah war nga ñëw ziar parce que yi dafa dafa bokk ci ponkum lislaam macha allah su dee mën nga ko am nga ko moom bu waroo fi di géej waaw soobee yàlla ñun dootuñu géejati fi incha allah waaw macha allah fi suñu travare Adama mu la ñoo ngi koy nuyu di nuyu macha allah Mouhamed Youssouf Moule di nuyu eh, macha allah Penda Jara Fatou Jara macha allah di nuyu aussi macha allah di nuyu yaa jaasi Sarr Marietou Sarr bàyyiwuñu kenn mule mule yi ah ñoom Ismaïla Diallo képp kuy mule mule sëriñ bi nuyu na vraiment di nuyu ñëpp mule mule yi vraiment bàyyiwuñu kenn macha allah. kontaan bu baax waa national international di woo ñëpp fii nag taalibe yi seen sëriñ moo ngi demaat macha allah vidéo bi dama koy bàyyi mu gudd ndeysaan sànq bu ma eggee ci ndeysaan ci yonente bi def naa appel vidéo madame Sow won ko won ko mu gis mu jàkkaarloog yonente bi ndeysaan macha allah waa kër ga jàkkaarloog yonente bi soxna ummi ñoom Moussa macha allah Mouhamed Moustapha Rahman Mouhamed Moustapha Rahim ah macha allah yéen ñu doyal fii ndeysaan maa ngi nii di demaat macha allah macha allah maa ngi nii di demaat ndeysaan macha allah kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad kenn du yow laay kenn du yow macha allah ndeysaan gisoon ngeen ko boo duggee rek moom alhamdulilah sedd gi fi nekk li mënul seddee nii macha allah yonente bi fu mu nekk boo fu duggee li ngay yëg rek da xam ne ne lépp dëgg la macha allah waaw wante ne lépp yëg-yëg bi ngay am rek ak sa xol nu muy naatee nu muy tooye rek da xam ne ki fi tëdd jàmbaar la ki fi tëdd ponkal la macha allah ki fi tëdd nga xam ne mooy gënt bi def macha allah nooy gën a jege nag macha allah ngay gën a am yëg-yëg ci sallallahu alayhi wa sallam wallahi ah macha allah ndeysaan actuellement jigéen ñi ñoo nekk noonu ci biir ndeysaan sallallahu alayhi wa heure bi baax na da ngay ñëw gën a jege affaire bi waxaat asalaamaaleykum yaa rasulullah waxaat asalaamaaleykum yaa rasulullah ya rasulullah assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum assalamu alaikum abu bakr تفضل يا اخوان لواء هنا السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم عمر السلام عليكم ابو بكر السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا رسول الله ah alhamdulilah rabbil alamin li may yëg maag yàlla rek moo ko xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la yonente bi la yonente bi tëdd bopp bi moo jàkkaarloo bu mag bi ndeysaan sallallahu du yow sallallahu alayhi wa naa la sallallahu alayhi wa sallam kenn du naa la asalaamaaleykum yaa rasulullah rasulullah asalaamaaleykum ya rasulullah ñii nañ la asalaamaaleykum ya rasulullah sëñ naa la kontaan naa sama xol sedd na asalaamaaleykum rasulullah gëmewuñ la ndeysaan waaye jënd mi def gëmewuñu la ànduñu ak suñu sago gëmewuñ la ndeysaan sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam gëmewuñ la ànduñu ak suñu sago kenn du la gis te ànd ak sago macha allah ya rasulullah kenn du doyal ci yow asalaamaaleykum ya rasulullah kenn ya rasulullah kenn du doyal ci yow doyalu ma macha allah asalaamaaleykum ya rasulullah asalaamaaleykum ya ya rasulullah sallallahu alayhi ya rasulullah salaamaaleykum yaa rasulullah alhamdulillah salaamaaleykum yaa rasulullah salaamaaleykum yaa rasulullah Keramik. Ndeysaan ndeysaan mu ngi jooy ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan moo ngi jooy ndeysaan di kay boo fi ñëwee waxuma la jooy waaye lu ne def ndeysaan boo ànd ak sa sago ndeysaan sallallahu wa ñëpp suñu xooy dafa tooy wallaay suñu xol dafa tooy ndeysaan ñii dañuy jooy jooyu xol ñii lañuy jooy ndeysaan ñëpp seen xol day tooy man mii xamatuma fu ma nekk damaa perte région ndeysaan allahu akbar ñeenti yoon ci journée bi ñëw naa di ziar sang-sang ñi di Seydina kontaan nañ bu baax a baax ndeysaan di ñaanal Sénégal di ñaanal monde en monde ñaanal taalibe yi mule mule yi bàyyiwuñu kenn ndeysaan kontaan nañ suñu xol sedd na guy mu glace yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla sàmm aar di nuyu mule mule yëpp ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam macha allah taalibe yi mule mule yi ñëpp am di jàmm yi soppe yi ñëpp yàlla indi leen fii macha allah di ñaanal mule mule yi nag rawatina mule mule yi ba yëg ko rek ak njaboot bi ak famille bi yëpp macha allah. doylu ma ma ci ci dem gisaab yonent bi ndeysaan macha allah ci rablu bi ma ci minbar bi macha allah foofu laay bëgg a dem ci bi ndeysaan dem alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam macha allah ñu ñaanal famille bi yëpp ñu ñaanal suma yaay njaboot gi ñaanal suma papa El Hadj Mamadou Aliou Sow ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yërëm ko xaaral ko aljanna ñu ñaanal taalibe yi mule mule yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal macha allah di kontaan bu baax a baax ndeysaan jërëjëf. ñaanal njaboot bi Mouhamed Moustapha Rahman Sow Prince Moulé ñu koy ñaanal bu baax a baax defal ko jàmm ak tawfeex moom ak rakkam Mouhamed Rassoul Sow ñaanal madame Sow laaree macha allah soxna Oumy di ñaanal suma yaay di ñaanal suma goro yëpp famille bi ak njaboot bi yëpp bàyyiwuñu kenn macha allah di woo ñëpp nag fii incha allah am na yàlla barkeel yokku ba yëg ko ndeysaan macha allah macha allah waa ñu ngi kontaan bu baax ñu ngi ci dëkk bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ngi fii nag ak seen mbokk taalibe Fama Boy Moulé macha allah ñu noonu ndeysaan nuyul sa mbokk taalibe yi ndeysaan mm-hmm. macha allah alhamdulilah sant yàlla rek ñu ngi seen ceeb alhamdulilah yàlla fi lekkal xam alhamdulilah bu may sant yàlla sant yàlla bu baax maa ngi di ñaanal yéen ñëpp macha allah macha allah sama ceeb tey dafa ñëw fii si dëkk bu tedd dëkk rasul sallallahu alayhi wa sallam macha allah macha allah tabarakallah wallaay kontaan rek kontaan rek kontaan rek alhamdulilah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp macha allah di leen ziyaara macha allah macha allah macha allah jërëjëf ah macha allah baama booy mule ndeysaan mule mule boobu ndeysaan moo ngi nii tey ñu fekk si ko fii ci dëkk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ci madinata munawara ndeysaan ñëw na indil ma ay affaire ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax di kontaan di nuyu taalibe yi macha allah kontaan lool lool macha allah jërëjëf. aywa Fama booy ndeysaan ah jërëjëf ndeysaan amul problème kontaan nañ bu baax ndeysaan indi na ma ay affaire ah waaw waaw ndeysaan jërëjëf ah macha allah ah maa ngi lay sonal mbuus mi ci la bokk ndeysaan ndeysaan jërëjëf ah macha allah mule mule la faama booy mule ndeysaan beneen bi la waaw be be fee la hmm. ah, fee la waaw ndeysaan ah teraanga bi bëri na moom allah ndeysaan ah, ah waaw mooy ne waaw be be ah macha allah jërëjëf jërëjëf ndeysaan jërëjëf ah carton ndox la ñuy indil macha allah jërëjëf jërëjëf faama ah, booy macha allah ah macha allah ndeysaan mule mule la fii la nekk fii ci Medina ndeysaan fii la nekk ndeysaan ñu fekk fii ci dëkkam macha allah ndeysaan jërëjëf di nuyu taalibe yi mu ne mu ne yëpp jëwriñ national international di kontaan bu baax a baax nag macha allah ndeysaan ah ndeysaan ah macha allah ah jërëjëf jërëjëf ah ndeysaan bagaas yi bari na ay meew ak lépp la indi ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf Fama kontaan naa merci incha allah ba ngoon rek ñu déggante jërëjëf Fama Boy Moule merci ndeysaan taalibe la mule mule la Fama Boy Moule ndeysaan moom a indi la ay sërite ndeysaan bagage yi bari na macha allah na yàlla fay la walla yàlla defal la jàmm ak taw feex ndeysaan alayhi salaam tàndarma lépp la indi ndeysaan ay meewal carton ndox lépp allah